ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu mam maryama jaratuna ko ñépp jaari jahim tay jaratullahi budul ko nag rawdatu mam jaare fi poroxaan kon wor ya xere dum dem jannatullahi nee ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayim am jaaratullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarim ndegam tuuba li man baalaxaayi am njaaratullahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullahi ñeneentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax loola di fanweeri ngir Bamba lillaahi nee leen salaamun bu so jaaratuna yaa doon Mariama yow maam jaaratullaahi yaa doon Mariama yow maam jaaratullaahi Iisa ibnu Mariama ruuxullaahi kun laamu جبريل نيو فيكون جارة الله شيخ بامباني خادما لم يكن اقلمهم ولا يكون لممكن من الله ما لين يوكم زيارة كيرم نفيو خل ياني رو ياني سنكر ياني لله يا جرسيار درام تي سكو تي هدي لله غير ما مجارة الله ليغا خا مني موي بوروم لوخو بو جوب بيغا خا مني بو اولغي كومو سيتو دا غاي فال كومو سيتو دا غاي فال باركي شيخو جان لا اله الا الله كوكو موي وي جورو شيخ احمد بامبا خادم رسول الله موم ريك مو ام ماغال جي في سي دارو دنيا موم ريك لا نيو تاباخال جمعة جو مل ني سي دارو دنيا موم ريك مو ام بيس بيغا خا مني موم لا نيو خا مني ماغالو بروغان سي بيس بي خول سوخنا جار فمو جوغي جخورو مباكي واو ñu dox ak seen i tànk xoolal Khourou Mbacke ñun bi ñëw oto lañ dugg. ñu climatisé ko. waaye ñi di jogge di daw lu ko neex. moom mu jóge ca Khourou Mbacke di dox ànd ak njaboot Mamour Anta Sali jëm si fi nga xam ne mooy Porokhane. jamono jooju ak ni Porokhane mel. ni àll bi mel. ni fii mel. dañ sant Serigne Touba waaye dañ sant Soxna Diarra waaye jërëjëf. jaare diraam tey sukk tey joxe hadiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangul nu suñ yéeni ak suñ jëfi nangu gu wér boole noog bamba fil jannaati billahi bu nu yàqu bu nu yoqi bu nu la bamba defoon saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullahi umu xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara

وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا